dekk bi nag ci jàmm ak salaam lañu mës a nekk ba 2005 coowal suuf si commencé fii Liko ko indi nag mooy dafa am benn famille Jibril Gibril jibril de Déthié dañ koy tudd mu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci fen fen parce que ñu ngi ci kaw aduna parce que li ñuy nekk ñu ngi ci suñu dëgg aussi famille Bobu, dafa yor ay këyit yu mu jëlee impôt et domaine ak yu mu jëlee ci administration coloniale Bobu Sénégal amul indépendance yu ñu naan certificat administratif certificat administratif moy këyit bu wone ne que souf si kat man ma ci bay wala ma ci jëmbat garab wala ma ci defar dëkkuwaay donc kat yéen nguur gi dama bëgg souf si ngeen def ko ci sama tour mu nekk sama momel loolu mooy certificat administratif certificat administratif boobu téeméeri hectare ak juróom benn fukk ak juróom ñett la woon certificat administratif boobu parce que yoon ci dëkku yoon la ñu nekk ci jamono yi indépendance tiitre wuñ ko bi ñu amee indépendance Senghor may leen ñaari at képp ku amoon certificat administratif nga dem régulariser ko 62 la ñu daqal loolu yëpp képp ku amul woon titre foncier ci jamono yi tubaab yi à partir de 62 suuf si nekk na moomeelu Sénégal mooy domaine national képp ku ko itteewoo da ngay dem nga gor nga bay mu nekk sa moomeel ba keroog réew mi di ko euh, état bi di ko soxla bi ñu demee nag ba am collectivité territorialisation am ay communauté rurale ñu ne léegi communauté rurale yi képp koo xam ne mu ngi ci domaine national nañu ko régulariser moy lu ñu naan délibération manam conseil de euh, conseil rural bi bindal le kayit nane li ñun ñoo la ko jox pour nga mom ko ci walla pour mbey donc lolu mo fi mësa nek 2005 nak, am benn way bu joggé feulé indi certificat administratif bobu dem communauté rurale bu kam dañ koy wax mu leer ñu défal leen délibération 60 hectares biñ ko defalee délibération mu indi ay bill géram pour maasale ko defe naa fii ñu taxaw tey toolam la woon am na fi tool ñeneen am fi tool waaye amu fi 60 hectares parce que fi ñu nekk ni bu am moitié hectare ci la yëpp donc bi mu amee délibération bi ñun ñu yóbbu ko ci yoon yoon daan ko tëj ko ñetti weeri kasu yu mu dul tëdd alamaan ko téeméeri junni ne ko li mu fi yàq yëpp ñu xayma ko ci ñeent million ak nangam na ko delloo askan bi ñun ñu xeeb loolu ñu def appel dëkk baa ngi nii di ma dégg bi ñu defee appel tribunal dëggal atte bu njëkk bi donc kooku féetee boor kooku jël ay bagaasam dem bi ñu jógee ci loolu 2007 bi ñuy waaj a créer ZAC bi fii beneen pàcc beneen membre famille bi mooy vaqueur Djibril Déthié Thioune ñoom tamit dem jilaat même kayit boobu certificat administratif boobu dem Sangalkam ñu défaral leen délibération 20 hectares té jamono yoy bi ñuy defar délibération yoy képp ku fi nekk mu ngeeg sa délibération man xeyna sama boss mo gëna mo gëna mo gëna moo té mom 99 la bu chef de village euh, Elie Sall 81 la té jamono jooju mu ngi am mise en valeur 1 million ak nangam kayit yaa fi donc 81 ku am mise en valeur toolam euh, lu mel noonu kooku munoo xey rek jël benen délibération taf ko ci kam te yoon dafa ne balaa nga affecté terre da nga lay da lay wóor ne nekk foofu kenn nekku fa wala bu amee ku fa nekk naan teg fa moomeel bu ko def moomeel bu dee mettre ko envaleur ngeen mettre ko en demeure mu mettre ko wala ngeen désaffecté ko balaa ngeen koy jox waaye nga jox ko Massamba jox ko Mademba jox ko Kumba jox ko Paate te loolu même nit ki moo koy signé donc loolu nag moo indi jafe-jafe yu bëri fii yëpp comme kayit yooyu mu ngi fii te bu ñu demee ci yoon normalement ku njëkk am kayit yow yaa yow yow yaa am dëgg donc ñoom ñëpp xam nañ ni dëkk bii moo am dëgg seen kaw mais dañu koy gëm parce que dañuy naan dëkk bi ay baadoolo lañu ay ñu néew doole lañu ay ñu ñàkk a jàng lañu donc ñooñu bu ñu ñëwee dañ leen di faxas rek ñu ñu ñu jël ko. ñu dem ak ñoom tribunal ñu dem ak ñoom tribunal tribunal débute leen naa leen foofu amu leen fa dara 2007. te yoon dafa ne bu ñu attee dara am nga yoon naan anduma ci ñu attewaat ko te am na diir boo xam ne war nga ko def boo ko deful nag atte boobu mooy wéy donc loolu la tubaab di naan le principe de la chose jugée atte nañ ko ñoom euh, laajuñu pour ñu attewaat ko atte boobu franco lay nañ dàq nañ leen ci xaj mais loolu doyu leen parce que nag nañ koy waxte dee suñu administration problème Sénégal yépp administration bi la te administration bi foo ñu réformer ko parce que administration bi ñun xëy na peut-être jànguñu administration waaye duñu ay jaayil ci côté boobu donc nit ñi bu ñu jàngul suñuy doom jàng nañu suñuy sët jàng nañu xam nañu lu ci lu joon ak lu dul yoon bi loolu amee receveur des domaines bi fu nekkoon bi mu jëlee kayit yi mu ñëw fii mu ne famille boobu xaw ma fu ngeen jaar ba état yoral leen suuf war leen damp waaye fee ngeen bëgg ñu dàmpee ko kunul ngalam benn mètre carré bu ñu occupé kon mënuñu leen fa 20 hectares waxuñu 20 20 mètres 20 wala 150 mètres carrés 20 hectares donc ku yaakaar ne ñii benn wala téeméeri kër la wut ñii fii a te administration bi am ay mu defal parce que nous sax xam nañ ne keuyit yoy ci fenn teguwul ci lu am maana ci yoon lu ci yoon bo ci dara buñ ko donc ëllëg suñu fi donc keneen moy nan ci biti dañ koy gis chaque jour parce que décision de justice bu xasee ba génn kenn mënatu ci dara mais décision de justice bobu man dama bëgg Sénégal ni bay ci xel ci décision de justice ŋañ justice parce que une justice c'est une dernier rempart de la décision de justice y toujours Ce ko lal lu lalu ci c'est la décision administrative décision administrative boobu fonctionnaires, fonctionnaire yi def bureau ne dara gëm Sen fait. ça. parce que alal rek lañu lañu parce que alal aussi bureau jël sen di acte administratif sans évaluer les conséquences tey benn famille dong nga bëgg ko jox téeméeri eh, ñaari fukki hectare fii ci Kounoune Ngalaw am ay téeméeri téeméeri famille yu fi nekk ñu waroon régulariser parce que li sabab eh, eh, titre foncier bi 303 bi mooy ñu dëkkal enseignants yi 1100 parcelles yi li ci des ñu régulariser village bi te kat Kounoune Ngalaw na ko ñëpp dégg fii ci ex communauté rurale bu sangal Sangalkam mennum Kounoune Ngalaw moo amul extension te loolu du dëgg du yoon donc ZAC bi moo ko waroon jël en compte pour que dëkk bi am extension loolu nag moo amul communauté rural bii fi nekkoon mooy Sangalkam moo délibéré ay kayit ay kayit yu teguwul fenn kayit yooyu ñu dem domaine boole ak kayit yu tegul fenn ñu jël loo xam ne xaw naa tegu ñu teg ko ci kawam bëgg mabal nit ñi am na lu xew nag boo gisee ñu gën a woote fii pour àdduna bi yëpp yëg ko famille bi dafa xey rek indil ñu ay assignation en expulsion ak démolition moy ñu génnee la ensuite toj sa kër war nañu dem tribunal nak le 5 novembre dem wuy ji donc lolu il faut que nit ñi ñep xam ko donc kayit yoyu ñu doon xex 2005 2007 ba fi mu nekk ni kayit yu bon yoyu tapalé bobu wuruj bobu njuj njaaj boobu mooy law ba tay lolu nak askan bi ken andu ci ñëpp ngi